salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di jaar bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di rafetlu tamit ànd bi ngeen ànd ak ñun ak euh, vraiment commentaire yeeg yëpp contact yi ngeen di def jéem a def ñun ñuy waxtaan di jéem a échanger wante parce que tamit euh, intérêt bi loolu kese la du leneen euh, bu yàlla dogalee nga xam benn affaire tamit dafay baax nga weccoo ko ak nit ñi puisque àdduna noonu lay demee. d'accord donc euh, am na benn société bu ma leen bëgg a présenter tey euh, mais dama bëgg a expliquer tuuti rek lan moo waral en chaque fois euh, ngeen gis may présenter ay sociétés yu différent hmm, boo leen xoolee Impero mu ngi nii maa ngi ko présenté fii Wazir mu ngi fii ah, donc Spike Bay mu ngi fii Eleven trading aussi mu ngi fi donc société yi nga xam ne maa ngi leen di présenter soo leen gisee ma ñëw di présenter société yooyu euh, yemuma rek ci benn société d'accord yemuma rek ci benn société puisque investissement en ligne ñu bëri ci Afrique pour ne pas Sénégal rek ñu bëri ci Afrique dafa may ay yu bëri ñu ñuy def man dal na ma te duma tàyyi di ko wax bugguma fi nga xam ne jaar naa fa mu metti ci man bëgguma nit ñi aussi euh, ñi nga xam ne xamaguñu yoon wi bu ñu ñëwee ñu jaar foofu man ci lan laa jaar mooy ñëw gis benn société wóolu ko gëm ko jël li ma yor ci xaalis yëpp jox ko ay quelques mois société boobu tëj dem je me suis rendu compte ne investisseurs yu mag yi du ñu jël mukk benn société rek ñu jël li ñu am yëpp ñu def ko foofu loolu moo waral damay faral di dugg ci internet bi di wër di xool ba gis su ma gisee société boo xam ne jàpp naa ne société boobu amal na nit ñi njëriñ damay ñëw ma présenté wu ci ma présenté leen ko amul benn société tamit bu fi nekk boo xam ne présenté naa ko te man investir ma ci sama xaalis personnellement damay jël suma xaalis ma investir si parce que loolu moo may permettre ma mën a xam société bi muy Eleven Trading bi képp koo xam ne euh, yaa ngi nekk fii ngay seetaan sumay vidéo dafa lu tu nga dem nga inscrire foofu lu tax société buy doog ubbi la am nañ ci yaakaar te société en général yi nga xam ne dañuy dañuy doog a ubbi Euh, ñooñu bokkuñu ak société yi nga xam ne dañoo ubbi ba am fi ay six mois un an yooyu parce en général dañu indi loo xam ne ñëw nañu xool marché bi dina indi benn ay avantages yoo xamante ne du bokkut ak société yi fi nekkoon tey société bi ma leen di présenter bi ma commencé dugg ci marketing de réseau ba léegi musuma ko mosuma gis société bu indi lu mel noonu mosuma ko gis lu tax mooy société boo xam ne dafa lay permettre nga dem ubbi fa compte nga dem wuti investisseur boo ko indee mu fay la fekk yow dugaloo fa benn dërëm mosuma ko gis donc gis naa ko dem naa tey ba yàlla dogal ubbi naa fa compte nit dugal na ma fa ba ma ubbi fa compte ba compte bi mu commencé dox man defuma loolu damay investir mais possibilité la boo xamante ne képp koo xam ne yaa ngi biir Sénégal wala nga nekk bitim réew surtout yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk bitim réew je yéen a ngi seetaan vidéo yi puisque bu ñu duggee ci chaîne bi dinañ xam yan réew yéen ñi nekk Espagne yéen ñi nekk Italie dama leen di gis bu baax xam naa ne ñu bëri dañ cay dañuy seetaan chaîne ci ci réew yooyu mu ëpp lu ñu leen di seetaane donc ngeen jéem a dugg ci affaire yi puisque gis nga sama gars yi bu ngeen ci duggul adduna bi foofu la toll tolloon na ay temps boo yoree suuf su bëri borom alal ñu dem ba si àgg société yi ñëw tolloon na ay temps bu buñ la nee société tel ku liggéeyul ci société rek day mel na yow liggéeyoo tey am na ñu bëri ñu tëdd ci seen diplôme dugal ko seen valis toog amuñu liggéey c'est parce que adduna bi dafay dox dafay changer bu njëkk boo nekkee Sénégal Sénégal dëkk ak dëkk sax mënuloo liggéey ak nit ki tey réew réew da ngay nekk fii di liggéey ak ay société yoo xam ne ñu ngi yii ñu ngi Hong Kong yii ñu ngi Miami yii ñu ngi feneen ak feneen Washington fekk yooyu yaa ngi toog fii Sénégal donc yéen aussi bu leen ci ragal dugg puisque soo leen ci duggul tamit ni tôt taar foofu la àdduna bi jëm voilà donc loolu benn parenthèse la woon rek ah tey nag dama ñëw pour won leen benn société bu ñuy wax bu ñuy wax Bigso Trade Euh, dinaa ci fas naa ci yéene euh, def ci ay vidéo yu bëri yoo xamante ne pour won leen ko puisque quand même c'est benn plateforme la boo xam ne plateforme bu xaw compliqué la ci nit ki nga xam ne amu amul habitude di dugg ci plateforme yi mais su fekkee dëgg tamit laa wax gisuma benn plateforme bu mel ne moom ci jamono yi may wax ak yéen gisuma ko waaw sincèrement gisuma ko Euh, li ma bëgg a wu tey rek mooy ci parenage bi nga xam ne Bigso Trade indil nañu ko dinaa ñëw ci naka la ñuy inscrire foofu su fekkee bëgg nañu képp koo xam ne am nga difficulté inscrire soo ma bindee mën naa defal vidéo ma woon loxo euh, activation 2FA bi tamit képp koo xamante ne Euh, danga ci am problème soo ma contacter dinaa la si jàppale mais tey dama bëgg a focaliser wu si ñaari mbir mooy benn lan la Bigso Trade lan mooy seen projet puisque c'est très important société bu ñëwee mu wax la ne man lii laa indi mais fii laa bëgg a jëm waaw Bigso Trade soo Pay bëgg nañ ko indi maanaam Bixo Pay soo ko soo ko déggee ci sénégalais ni mu ko mën a comprendre mooy nga nekk ci plateforme bi plateforme bi war na la mën a permettre nga dem tey ci marché yi nekk fii bon lu mel ne Auchan nga dem foofu tey jënd commandé ba pare war nga ko mën a fayee ak plateforme bi nga xam ne danga fi yor xaalis nga dem fay foofu foofu la àdduna bi jëm suba waaw Bixo Money ñu ngi ñu ñoom ci seen jëm bopp ah, Euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi préparer pour indi Big Show Money waaw ah, Big Show Events Big Show Cash hmm? Big Show Big Show Meaning xam nga mm, le fait que ñu indi fii maanaam war nañ mën a permettre nit ñu suba nga ñëw commencé miine seen coin yi nga xam ne ñoom ñu ngi ko war a indi tey Big Show Trade moom moo nekkagun lu disponible actuellement waaw big so AI maanaam big so boo xamante ne intelligence artificielle la donc euh, lii ay projet la yoo xamante ne euh, ku dugg ci plateforme bi boo boo boo ko xoolee ni nga ko gis mais li ma leen wax rek soo nekkee sénégalais nga nekk ndaw wala nga nekk mag foo mën a nekk nga yor xaalis mën nga ci gañe xaalis ci plateforme bi yoruloo xaalis mën nga ci gañ a xaalis si plateforme bi te loolu moom mooy lu am boo ñëwee rek nga ubbi fi compte yow boo ñëwee rek nga ubbi fi compte képp bépp investisseur boo xam ne da nga ko indi ci plateforme bi plateforme bi dina la fay ci li mu investir 3 mm. pour cent waaw donc loolu amul ci beneen plateforme bu fi ne waaw bépp investisseur boo xam ne yow da nga ñëw nga ubbi kont dugaloo ci dërëm nga def comme man li ma def wala lu mel noonu nga dem seeti sa benn grande sœur wala sa copain wala sa benn yaa xam nga expliquer ko plateforme bi moom mu ñëw jaaree ci sa lien mu inscrire ci dugal ci cent dollars yow am nga ci trois pour cent mooy trois dollars waaw trois dollars yoo xamante ne yow defuloo lu dul investiroo ci dara donc tey pour bañ vidéo bi gudd li laa leen bëggoon a présenter ci Bigso Trade waxuma nag ak investissement yi yi nga xam ne soo ñëwee nga investir à partir de cent dollars rek dangay nekk silver waaw da ngay am euh, maanaam euh, pare parrainage bi da ngay da ngay jot ba jusqu'au euh, cinquième niveau da nga koy jot waaw silver ngay te huit pour cent ngay gagné sa direct yi waaw donc vraiment boo demee ba gold beneen affaire la waaw niveau yi da ngay jot ba vingt cinquième niveau waaw euh, boo demee ba diamond da ngay jot ba soixante quinze niveau loolu ñi nga xam ne réseau la ñuy def xam nañ bu baax li may wax sama gars yi gis nga àdduna buy dox da ngay dox nga àndax moom waxuma kenn na jël sàcc wal mu dem lépp wal mu jël xaalisu jàmbur wala non waxuma foofu mais ñi nga xam ne dañuy business laa wax ñi nga xam ne dañuy business bàyyi leen seen kii nekk naan ci benn plateforme laay toog loolu amul fenn boo gisee feneen beneen kër boo xam ne moo dàq sa kër sawaay <laughs> jëmal dem foofu loolu dara nekku ci nangul leen plateforme bi mu moo dàq bële rek nga dem dara nekku ci waaw nekkuñu fi pour benn plateforme dañu fi nekk pour liggéey moom moo ñu fi teg donc plateforme baa ngi nii am na ay énormément de de de de de avantage yoo xamante ne amul ci yeneen plateforme yi mën nga ci ubbil mën nga ci mën nga ci ubbil nit conte te doo génn sa biir compte presque mën nga ci activer nit compte te doo dugg ci biir compte yooyu yëpp ah, mën nga ci envoyé nit xaalis boo xamante ne ci sa compte nga koy jëlee nga envoyé ko ko donc yooyu yëpp ay ay ay avantage la yoo xamante ne te yow soxlawuloo dara pour gañe xaalis ci plateforme bi lu dul nga jël sa benn cinq minutes nga créer fi compte nga jël lien boobu sa lien de parrainage nga jël ko gis nga lien gauche a ngi nii nga copier fii nga envoyé ko lien droite a ngi nii ah nga ubbi sa binaire commencé binaire bi beneen affaire la mais nga jël rek benn benn si lien yii nga jël ko envoyé ko benn Masamba bu toog fële plateforme bi gis naa ko xool ko mu xool ko affaire yi neex ko mu jël cent dollars dugal ci am nga ci trois dollars yow mu jël mille doga mille dollars dugal ci am nga ci trente dollars dix mille dollars am nga ci trois cent dollars donc loolu yomb na te yow xëyoo gontoo defoo ci dara waxuma nag ñi nga xam ne réseau la ñuy liggéey donc euh, tey laa lii laa leen indiloon dinaa defaat yeneen vidéo yoo xam ne expliquer plateforme bi puis puisque man gan laa ci xamaguma ko bu baax a baax hmm? dinaa ko topp de A à lépp lu ma ci xam ma expliquer ko ba mu leer waaw tey mbokk yi li laa leen indiloon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaan ngeen abonné wu di partager vidéo yi vraiment ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf